ok alhamdulilah ñu ngi war a jël tey aaya juróom-ñett fukk ak ñaar muy verset quatre-vingt-deux ci suratul araf wa ma kaana jawaaba qawmihi illa an qaalu axrijuhum إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yeesal sant suñu boroom ñu dajale ci néegam bi ñu fas yéene jàng ab téeréem suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ca ay mbég yu bari yàlla na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko ak ñépp ñi nga xam ni ñoo ko nar a déglu ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf te it fayal ñu gën ji fay ña nga xam ne ñoo dox suñu digganteeg ñoom di leen ko jottali bu ñu sukkandikoo ci ñooñu nga xam ne ñooy waa CND ñoom dañ ne weer wi démb lañ ko doon séentu waaye gisuñu ko fenn ci àdduna bi ci seeni xabaar kon tey jii moo nekkoon fanweereelu fan ci weeru muharram muy wañe ne kon suñu guddik tey gi muy guddi gu jëkk ci weeru safar li nga noonu sun maam yi daan ko wax diggu gàmmu ci 1440 alhamdulillah li nga xam ne it ñu bari ci yéen yëg nañ ko mooy Sénégal bokk nañu yéeg benn ci ndawi réew mi yàlla subhanahu wa taala jël ko muy soxna Zeynab Fall ñi ngi ñaan yàlla na ko yàlla jéggal ca yàlla yërëm ko mbokk bokk na ci lenn ci bind yu nit ñi war a bàyyi xel rek maadaama ku siiw la woon doonte nañu faatu ànd ak moom kenn xamul nu mu toll waaye mën nga caa déggee nii rek waajur yi nañuy bàyyi xel seen njaboot yi ñuy fexe ba ñu dégg seen diine xam ko loolee da ngay gis ni du leen yàqal seen mbiru àdduna dara te it mooy yóbbal bi gën a rëy bu leen di mën a dimbali ci jànkoonteeg jafe-jafe àdduna comme naka suñu borom yàlla waxe fa inna xayra zadi taqwa bokk na it bind bu ñuy mën a jànge ci moom la nga xam ne dem nañ ba def koy loi ci suñu réew mooy kenn amul droit may sa doom bu jigéen ca amul fukki at ak juróom-ñett mbokk loolu safaanoo na ak suñu diine safaanoo na ak suñuy aada soxna si yéen ñëpp dégg ngeen ñu ne fukki at ak juróom la sëy ndax loolu da koy yàqal ca àddunaam dara déedéet loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bari na yit ndawi tey ay jafe-jafe yu mag yu ñuy am ci suñu wàllu sëy fu ne cré woote nañ fa ay séminaire du ci juma aba obayda du sunu juma ji daje nañ fi docteur Mouhamad Lo imam Aboubacar Sall Cheikh Ousmane Galladio bu dee ne nag ay aba obayda xawma ñaata problème bi yépp mooy nu ñuy def ba ndaw ñi xam ne sëy jaamu yàlla la ñu muñu leen te jàppalente waaye yéen ñi dégg témoignage ya nga xam ne borom këram def na ko ak nit ñi leen xam def nañ ko gis nañu ne koo déggoon ndégalu borom këram la tënku woon topp ko na yàlla santaane nañ topp borom kër waaye borom kër ba it ko ko fonkoon la ko ko yërëmoon la walla waaye ndawi jullit ñi bàyyi leen xel ci loolu ca xam ne sëy jaamu yàlla la du mbilim licci ñu def naka sudul noonu bokk na it luñ ci mën a déggee nga la way yéen ndawi jurit ñi it ngeen am engagement ci seen diine ak bari tey ñoo xam ne sëy ay ndaw lañu seen dund yépp jox nañ ko sport ñii seen dund yépp jox nañ ko politique ñii seen dund yépp jox nañ ko ay culture ngalawaay seen dund fexe leen doon ñuy laaye biir di waxtaan ci diine di wootante ci wàllu diine maa ngi ci profito ndaw yi nekk ci jàkka ji tey rek indi nañ fi benn équipe boo xam ne sept heures ba midi ñi ngi fi moket yi ngeen toog dañ koo fóot ba mu set wecc mbokk loolu ay engagement la yoo xam ne góor ak jigéen ku ne la caa war a bokk alhamdulilah ay góor ak jigéen dañu ñu fiy daje falilahi alhamdu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax comme nañ ko doon seedale soxna soose la ma ciy mujjee mooy dund ko gàtt gi mu dund 38 ans mbokk 38 ans la dund waaye maa ngi leen di fàttali ni ki yonent bi alayhi salaam ne woon yaay sangu jigéenu adduna muy Fatima bintu Muhammad 28 ans la dund Fatima bintu Muhammad 28 ans la dund mboolem doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ëppoon lu mu dund moom mooy Zeynab bintu Muhammad 29 ans la dund kay nga xam ne mooy Umu Kalsum 26 ans la dund Ruqiya bintu Muhammad 21 ans la dund ca mbokk ñooñu ñoo bokk nañ ci ñuy gën ci biir aljana muy wane ne dund gi gudd na ak gàtt na amul solo xam nga li am solo mooy loo ci def waaw suñu borom yàlla bind ñu ngir ko gën a gudd fan daf ne ahsana amada ana kan mooy gën a rafetal jëf looloo tax nga la way yow ndaw julit bul jàpp ne da nga am période de jeunesse booy war a noos ak période boo màggee pour jaamu yàlla déedéet jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla sa ndaw gi moo gënal yàlla fuuf sa jaamu yàlla ak bàyyi bàyyi leen xel ci loolu jaamu yàlla yéen ndaw moo gënal yàlla seen jaamu yàlla bàyyi ak maam moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam di wax ñu ñuy woo di leen keral yowmal qiyaama bokk na ci ñi nga xam ne seen jeunesse dañ koo jagle doon di jaamu suñu borom yàlla na yàlla boole ci suñu jeunesse Zeynab Fall ak bépp ndaw bu am yëg-yëgu diine yàlla na yàlla boole ñu jéggal ak yërmande te defal ñu àjjana suñu wàcc waay kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
بالله من الشيطان الرجيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله الغابرين وألقرنا عليهم نقرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بارك الله فيكم سني برموني قوم لوط وما كان جواب قومه nekkul woon tontu xeetu luut illa an qaalu axrijuhum min qaryatikum lu dul daññe génn leen leen ca seen dëkk bi innahum unaasun yatatahharuun ñoom day ay nit lañu ñuy laab laablu fa anjaynaahu wa ahlahu noonu lañ musala luut ak njabootam nga illa mraatahu kaanat min alxaabiriin lu dul soxnaam sa day bokkoon na ci ña nga xam ne dañuy des gannaaw wa amtarnaa alayhim matara ñu tawal ci seen kaw ab taw fanzur kayfa kaana aqibatu almujrimin xoolal nag naka la nekk mujjug ña nga xam ne ñooy def ko te bakkaar yu mag ya wa ila madiyana nii lañ yónnee woon ca madiyana axaahum shuayba seen doomu ndey ba shuayb qaala ya qawmi abudullah mu ne ay yéen saw xeet jaamu leen yàlla maa lakum min ilahin gayru ñeelu leen gannaaw moom kenn ku ñuy jaamu ku dul moom qad jaatkum bayinatu min rabbikum dikkal ne leen lay yu leer yi ba woo ci seen boroom fa awful kayla wal mizan e way matal leen natt yi ak peese yi wala tabxasu nnaasa ashyaahum bu leen wàññi nit ñi la nga xam ne mooy seeni mbir ak mbir ma nu mën a doon wala tufsidu fi l ardi baada islahiha bu leen nekk di yàq ci suuf gannaaw bañ ko yéwénalee zalikum xayrun lakum lii de moo gën ñeel leen in kuntum muminin su dee nekk ngeen di aji gëm mbokk adduna day amoon na fi benn jamono benn xeet bu ñu wax qawmu luut bu ñu waxoon seen mbir ñu dëkkee woon fële côté Jordanie ñoo jëkk a sos la nga xam ne muy ak ngóor jigéen suñu borom yàlla subhanahu wa taala yónni fa yónent ci yàlla luut bi mu wootee daal di koy ŋàññ xeet ba dañoo taxaw ni ñii daal nañ leen génne suñu dëkk lii nga xam ne xew-xew bu bees la di civilisation ñu naan dañ koy contre génne leen leen dëkk bi ñu nekk naan dañuy laab-laablu góor guy dikkal góor lu nekk ci loolu loolu mbokk da ngay gis ne mooy sax ba ila yawmi diin ñi nekk ci ak réer akuk caay-caay mënuñoo dëkk ak nit ku baax daf leen di déranger demal tey dëkk bu mel ne France wala lu bari ci en Europe xale bu jigéen am na droit sol mini jupe am na droit sol loo xam ne nii biir baag dënn baag lépp ci biti fu ko neex dugg fu ko neex liggéey déranger wul kenn beneen xale bu jigéen moom génn daa di muur awraam ñu ne kii day déranger école bu mu dem ñu dàq ko société bu mu dem ñu dàq ko lu tax mooy kii day jéem a laab laabloo day ila axiri loolu mbokk da ngay gis ne mooy li am ba ila yawmi diin borom boobu nag nee na ca la ñu musala yeneen ci yàlla luut ak njabootam muy wone ne luut njabootam rek ñoo ko gëm yeneen yeneen ci ci alxuraan yépp suñu borom day wax ne musal nañ ko ak ña gëmoon ànd ak moom comme niñ koy nar a jànge léegi ci Shuaybu alayhi salaam amma Luut këram rek ñoo ko gëm loolu it di benn leçon bu suñu borom di ñu jox ngal la waay bul jàpp ne société bi nga nekk li fi nekk mënoo koo bañ déedéet mënoon ngaa nekk ci dëkk boo xam ne sa kër dong moo fay kërug jullit ngal la waay fexeel loolu yow yow ab jullit borom bi mu ne fama wajadna fiha gayra baytin min al muslimin même bu doon mboole mi koñ bi dëppoo nañu ci dañoo jalgati la nga xamee ni ni mooy la suñu borom yàlla bëgg jigéen ñaa ngay xeesal sànni nañ seeni muuraay ñee toppatoo tuñu lenn lu aju ci seen diine waaye yow mi jullit xam ne ëllëg damay taxaw sama kanamu borom mu laat ma sa kër moom fexeel ba na doon kër goo xam ne këru luut la te mooy kër gu nangoo sax ci li yàlla digle même bu ko ñëpp contrôle waaye mbokk it ñu jàng ne yàlla mooy jubal ko ko neex xoolal luut ak coono yim daj suñu borom nee na soxnaam bokkoon na ci ñuy des gannaaw ñu ñuy mbugal ba pare yàlla dem kër firawna kàccoor bi gën a rëy ci kàccoor yi jël soxnaam moom jubal ko kon yàlla jubal ko ko neex yàlla na yàlla jubal ñu waaw yàlla na yàlla jubal ñu ndax mi ngi noonu may def lu ko neex borom bi nag nee na xawmaloo gannaaw ba lañ leen tawal ab taw taw boobee dañ ko jàng ca kanam bu ñéggee huut amtarna alayhim hijaratan min sijilin man mandud suñu borom mu ni tawal nañ leen ci sa seen kaw xeer yoo xam ne nii dañ ko tàngal ba mu lakk ba tàng jër moom lañ leen doon dóor may fuq seen bopp ya musawwamatan inda rabbik waa dëkk ba ku nekk xeer bi war a toj sa borom suñu borom mandargal na ko gis ngeen borom bi nee na xoolal nan la nekkee mujjeelu ña nga xam ne ay def ko te bakkaar lañu mbokk xawma lu day li ñu yëgoon yàlla netti nañ ko góor ñaa doon dikkal góor ñi amma tey jamono ñi ñuy dund ñun dañoo passé foofu góor jigéen bi muy commencé en Occident un peu partout dans le monde nit ñi dañ daan jàpp ne am nañ droit di ko sañ di ko def di dugg ci néeg di ko def amma nag dañoo dem ba Occident bi nga xam ne fa la capitalu seytaane nekk góor day ànd ak góor ñu dem taxaw ca kanamu mairie ba ñu marié leen kii mooy jëkkër kii mooy jabar loolu mbokk ñun ñoo ko jëkk a def ci kaw suuf mi ngi noonu def li ñu tuddee ay gay pride génne ay États-Unis plus de deux millions de personnes ñoom ñëpp di manifester wu man kontaan naa nekk la nga xam ne mooy góor jigéen loolu mbir la yoo xam ne ngallaway nañ ci yee njaboot gi ci niñ koy waxe woon ci tafsiru passé ba loolu buñ ko toléré ak lu mu bari bari ci ñu koy dégg ko gis ñu ngi noonu borom bi it di wane ne mbokku nit ku bon mujjam du mën a rafet mukk xoolal nan mooy mujjug nit ku bon ndax xam nga caga bi gënoon a siiw ci sa koñ ba nga dëkk laajal nan la mujjee naankatu sàngara ba fa gënoon a siiw nan la mujjee agresseur bi ñëpp xame woon nan la mujjee mbokk ab kàccoor mujjam du rafet mukk wal aqibatu lil muttaqin ñi am ragal yàlla gu sell ñooy am mujj gu rafet suñu boroom alak leen boole seen musal luut ak njabootam gannaaw ba mu sos beneen génération génération boobu bokk na ca madiyana madiyana cosaan bi moom góor la woon goo xam ne nii moo sos dëkk bi ñuy tuddee madiyan da ngay dellu ci dëkk bi ci àll bi bëri na fa kër ibra kër moodu kër nangam ila axiri moo sos madiyana dañ ne madiyana bi dafa takkoon doomi luut mu ngi noonu giye googu mu amoon ca la yonent yàlla Shuayb bu juddoo Shuayb bu boobu ñëw fekk xeetam gannaaw bokkaale ak borom bi ñuy noggatu société bi noggatu bi gën a rëy ci noggatu bokkoon na ci ñoo yoroon commerce dëkk ba bu ñuy jënd daañ nax ña ñuy jëndal bu ñuy jaay daañ nax ña ñuy jaayal lépp lu ñu siq ak nit daañ ko wàññi amul benn aq boo xam ne nii daañ ko respecté ci kenn yàlla yónni ci ñoom yonent yàlla Shuayb mu wax li maami yonent yépp waxoon jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaleek dara ndax loolu mooy fondement mbaax gu mu mën a doon bépp nit ku yàkkamti ne daa bëgg a am kër ñëw rek commencé teg miir yi ci kaw suuf ne day yëkkati étage yéen ñépp xam ngeen ne balaa yàgg lépp jóoru fokk mu am fondement naka noonu it mbokk bépp mbaax gu ñuy wóote ci diine day fekk ne pas-pas bu sell lal ko pas-pas bu sell bu amul égal zéro looloo tax mu ne leen ngallaway bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw ba kay suñu borom yéewee na li loolu moo gën ci yéen bu dee nekk ngeen ñi gëm na am mbokk julit mbaax gum mën a doon du jëriñ doomu aadama ca gëmul zalikum xayrun lakum in kuntum muminin bu dee nekk ngeen ñoo xam ne ñu gëm ngeen loolu itamit waxoon nañ leen ca la ca saalax waxoon bañ koy tafsir alarbi bi passé mbokk yi suuf defi bakkaar yemul abadan waajee njaaloo ca France bokkul ak kuy njaaloo ci dëkk yu mel ne Sénégal naka noonu itamit da ngay gis dëkk boo xam ne dañ koo laabal yéen ñépp xam ngeen ne njaaloo fukki njaaloo ci Sénégal moo gën benn njaaloo ba nga njaaloo ca Makka borom xam-xam yi dañ koy topp sax ba ci nga dem fekk famille yoo xam ne ñu saggan lañu nga njaaloo fa fukki yoon moo gën nga dem fekk famille bu laab bu yar seen njaboot ci diine nga fexe ba dugg fa ba njaaloog seen doom yi jigéen ndax ñoom dañoo def islaax ba pare yow nga ñëw yàq loolu ñu defaroon yépp ba ndax suñu borom mu ne bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw ba nga xam ne nii yéwénal suuf soosee lii lépp kon moom la Shuayb bu wax Cheikh Shuayb bi dañ ko doon tudde xatibul anbiya mboolem yeneen ci yàlla wax ci alquran discours Shuayb moo ëpp mboolem discours yeneen ci kon Cheikh Ousmane lu mu ci teg
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
barakallahu fiik suñu borom mu ni Shuayb bu ne wala taqudu bi kulli siratin tuidun ewaay bu leen toog ci bépp yoon nekk di tëkkuwaate wa tasudduuna an sabilillahi man aman ngeen di fekk ci yoonu yàlla kaka gëm wa tabghuunaha iwaja sàkk yoon woowee mu yoon wu jeng waskuru is kuntum qalilan fa kassarakum fàttaliku leen ba ngeen doonee ñu néew mu def leen mu bari leen ngeen doon ñu bari wanzuru kayfa kaana aqibatu lmufsidin te ngeen xool naka la nekk mujj ña nga xam ne dañ doon yàq wa in kaana taifatun minkum amanu bi lazi ursiltu bi bu dee benn kuréel ci yéen gëm nañ ci liñ ma yónnee ca moom wa taifatun lam yuminu am beneen kuréel boo xam ne gëmuñu fasbiru hatta yahkuma allahu baynana muñ leen ba bàyyi yàlla di àtte suñ diggante wa huwa xayrul xaakimin ca moo gën ca ña nga xam ne ñooy àtte mi ngi noonu mbokk yonent yàlla Shuayb gis nañu wax ne xeet bi bu leen wàññil nit ñi seeni mbir loolee mbokk yemul ci balance ak natt rek bu dee ñuy peser ak a natt ak a mesurer suñu borom mu ne waylun lil mutaffifin ca saar woowu ngeen xam ko yàlla mu ne ñii nattal nit ñi wala di leen peser wala di leen mesurer di leen nax xanaa xamuñu ne dañ leen dekkal ci bis bu mag bis ba ñuy taxaw ci kanamu borom bi waaye loolu ñu wax ne bu leen wàññi nit ñi seen mbir ngalla waay yow mi nga xam ne da ngay liggéeyloo ay nit ay waaye jox leen la nga xam ne mooy seen aq ba mu mat sëkk bu leen wàññil seen mbir yow mi nekk ca place di liggéey ñu lay fay la nga xam ne moom la liggéey bi laaj ngalla waay jox ko aqam ba mu mat sëkk bu weer wi dee nga fayeeku sa salaire ba mu mat te boo waree xëy 7 heures 9 heures ngay ñëw boo waree wàcc 5 heures 4 heures nga dem lii lépp mbokk da ngay gis ne wàññil nit ñi ci seeni mbir lañu loolu it képp koo xam ne am na àqam kenn waru ko ko wàññil bokkoon na lu ci xawmu Shuayb bu boole woon mooy dañ daan toog ci yoonu Shuayb képp kuñ gis nga jëm ci Shuayb bu ñu ne la gis nga kii bis boo ko gëmee da nga alku da nga def lii da nga def lii loolu moo tax borom bi ne yéen a ngi tëkkoo ci yoonu yàlla jafeel ko ba kenn ñi mu wuccaa jaar ca it tey jii loolu mbokk da ngay gis ñu bari tey ci sunu doom yi dund rawatina en Occident dañuy am ay problème problème mu yor sab sikkim problème mu muuru problème mu waxtu julli jot nga julli yooyu yépp mbokk da ngay gis ne ay xat-xat la yoo xam ne ñu bëri ñu ngi koy dund suñu jamonoy tey jii borom bi nag daa di cay dolli ne ey yéen ñi nga xamee ne nii yéenay sama xeet fàttaliku leen yéen bu yàggul dara ñu néew ngeen woon te ñoom ñoo remplacé xaw ma lool ñu néew ngeen yàlla bari leen tey ba ngeen am kattan ñëpp ragal leen loolu it mbokk mu ñuy won ne tubaab bi dañuy nax mbokk naan bu ñu bëri dañuy am problème wallahi waxuñu dëgg suñu borom yàlla moo moom suufam moom ay jaamam bari waay loolu kattan la commenceel ci gën a néew laajal mag ñi ngeen xam ci àll bi wallahi doo dem mukk fekk kër goo xam ne lu jege ñaar fukki nit ña ngi fa yeewoo ñu naan dañoo fande wala dañoo diñee ña gën a am problème mooy borom benn jabar ak ñaari doom toujours ñooy wër di lebi dépense nga dem foofu ci et- wàllu état yi tey jii état yi ëpp doole mooy état yi ëpp ay nit ñépp nangu nañ ni li ëpp croissance tey ci àdduna bi mooy Chine ci Chine ñooñu ñu mu ëpp ay nit ñëwal en Afrique ñi fi ëppale mooy Nigéria Nigéria mu mu mu ñu ëpp ay croissance donc tubaab bi dañuy nax ngalla waay jeunes yi fexe leen am njaboot njaboot xéewal la wala nga ko xam nga màgget mi ngi noonu gannaaw bi itamit sa jubluwaay ci njaboot du problème mu àdduna problème mu àdduna tubaab moo ko am su ma amee ñaari doom doy na ñetti moom moom la ñuy tudde famille nombreuse ndax xale yi dama leen a war a fay lii taxawali taxawali am ma yow jurit xam nga looy gëm xale yi dañoo am wërsëg bu leen yàlla jagleel yow am wërsëg bu la yàlla jagleel loolu muy ci wàllu àdduna gannaaw ba it boo deeyee ay waay mbokk julit bi nekk ca barzaq kii bàyyi ñaari doom yu jaamu yàlla gannaawam ndax dana yeme ki bàyyi ñaar fukki doom yoo xam ni bés mu nekk ñu julli waxtu juróom di ko ñaanal di ko defal teraanga ndax ñaar ñooñu dañ mën a yem abadan duñu mën a yem yonent bi alei salaam mu ne kenn bàyyiwul gannaawam lu gën a baax doom ju baax ju lay ñaanal kon fexe leen def la yonent bi wax takk leen ay jigéen ñu leen bëgg tazawwajul waluda al waduda fa inni mukaasirin bikum al umama yawm al qiyam takk leen ay soxna bari leen ay doom sama xeet dama koy puukare wa yawm al qiyama borom bi nag ne Shuaybu na leen waaw léegi te ñoo jàmmoo yéen woo naa leen am na ñu ma gëm am ñu weddi te ñoo ku nekk rek jàpp ca la nga jàpp ñu xaar ba xam lu yàlla atte yi ci ñun waaye mbokk loolu ab yéefér du ko nangu looloo tax ñu déglu lañ mooy tonte bi Cheikh Ousmane قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
barakallahu fikum suñu borom mu ne qaala al malau allazina stakbaru min qawmi noonu la waxee ña nga xam ne dañoo rëy rëylu woon ca xeetam la nuxrijannaka ya shuaybu wallazina amanu maaka min qaryatina sikk amul ci ne dañ la génne yow shuaybu yaak ñi nga xam ne dañoo gëm ànd ak yow ci suñu dëkk bi aw la taudunna fi millatina wala boog ngeen delluwaat ci suñu jaami wu ne yàlla wi suñu doxalin wi qaala awalaw kunna kaarihin mu ne ah doonte ne ñun dañoo sib dañoo bañ loolu qad iftarayna ala allahi kadiban in udna fi millatikum ñun day dooral nañ ci yàlla fen su dee ne dellu nañ ci seen doxalin wi seen yoon wi baada is najjaana allahu minha gannaaw ba ñu yàlla musalee ca loole mi ngi noonu wa ma yakunu lana an nauda fiha yellul ñi ci ñun mukk ñuy delluwaat ci seen yoon wi illa an yasha allahu rabbuna ah xanaa lu dul lu neex yàlla suñu borom wasia rabbuna kulla shay'in ilma suñu borom yàlla peeg na lu mën a doon ci xam-xamam ba ala allahi tawakkalna ñun dee ci yàlla dong la ñuy wékku rabbana aftax baynana wa bayna qawmina bilxaq ey yàlla atteel suñu diggante ak diggante suñu xeet bi ci dëgg wa anta xayrul fatihin yow de yaay ka gën ca ña nga xam ne ñooy ubbee ca mooy ñooy attee ñu ngi noonu mbokkoo Shuayb bi mu leen waxee lii ca mooy la asunu yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon waa mag mooy lakum diinukum waliya diin téye leen seen diine ma téye sama diine notable yi réy réy li woon dañoo jóg na ko déedéet loolu du fi mën a am ñaari diine moom du am ci pénc mi sunu dëkk bii lii ñu gëm fekkoon ci suñuy maam yéen ngeen weddi ko ñaar rekk a mën a am imma ngeen delloowaat ci sunu doxalin wala ñu génne leen suñu dëkk bi mbokk loolu mooy am ba ila yawmi diin wallahi Sénégal gi xam nañ fi ay nit yoo xam ne dunduñu lu dul alquran ak sunna woote wuñu lu dul alquran ak ay sunna am ñu taxaw ne leen déedéet dëkku sëñ diw bii moom képp ku tënkuwul ci njàngalam sëñ diw da nga jógee amal ñu suñu dëkk mi ngi noonu ba am na ñun ci bund xataal ñoo xam ne ñu ñu xam lañu la leen génne foofu mooy bund xataal leen ba génne leen ci dëkk ba ñi ñu mën a tudd ay tur lim leen loolee mbokk wallahi lu doy waar la ñoo xam ne woote wuñ ci christianisme woote wuñ judaïsme woote wuñu ci sëriñ bu bees bu ñu créé woote wuñ ci dara mais seen wax yépp mooy ñun day alquran ak sunna mooy suñu yoon ñu ne leen da ngeen a safaanoog sëñ diw mooy duural nañu sëñ diw moomee ça veut dire que sëñ diw nekkuloon ci alquran ak sunna bokk loolu mbir la boo xam ne ni bu grave la képp koo xam ne kilifa la ca xam li may wax ngalawaay war na caa jéem kéemte daal kattanam xam ne suuf bi suufas yàlla la yàlla dañu fi indi ñu jaamu ko lañ koy jaamoo mooy nañ ko wéetal nañu roy ab yeneen tam lii dong mooy jaamu yàlla kenn duñu laaj buñ dajeeg suñu borom lu dul alxuraan ak sunna wallahi kenn duñu laaj buñ dajeeg suñu borom lu dul alxuraan ak sunna kon ki nga xam ne nii daf ne moom tënku naa ci alxuraan ak sunna nga la way boo ko mënul fekk jàmmal ko waaye da ngay gis li ñuy wax mooy la qawmu Shuayb bi waxoon la nuxrijannaka ya Shuayb walazina amanu maaka min qaryatina aw la taxudunna fi millatina Shuayb ne leen waaw même boo dee ne ñun li ngeen nekk neexuñu sax jàpp ngeen da ngeen ñu forcé delloo ñu ci déedéet mbokk loolu kenn mënu ko mbokk pas-pas kenn mënu caa forcé nit mi ngi noonu pas-pas kenn mënu caa forcé nit loolee moo tax mu ne ñun day daan dóoral yàlla ay fen bis bu ñu delloo ci seen doxalin wi gannaaw bañ ci yàlla musale ca mbokkoo kaw suuf bépp doxalin bu am ak bokkaale loole mooy fen wi gën a rëy ci kaw suuf mu ne nag ñun buñ ci delloo lool day kon fen nañ fen wi gën a rëy ci kaw suuf looloo tax buñ la laajoon kan moo gën a rëy fen ci kaw suuf da nga naan mooy bokkaalekat bi waaye Shuayb bu mu ne yellul ci ñun de ñuy dellu ci seen doxalin bi lu dul dafa neex yàlla ca mbokk gis nga jullit day tegginoo ak boroomam jullit day gëm laa xawla wala quwwata illa billah looloo tax du ne mukk danaa def nangam lu dul mu wax insha allah du ne mukk duma def nangam lu dul def ne insha allah am déet aka bëri ñu waat ne nangam du ma ko def ba waat ci sax turu yàlla wëlbatiku waat yàlla nappilal ñu def ko looloo tax li gën a bon gën a nekk musiba ci kaw suuf mooy dellu ci shirk waaye Shuayb bu ngir tegginoo gu ñu teggine ak seen boroom doonte na ñu jël leen daggate leen ay morso moo leen gënal dellu ci shirk jël leen taal leen moo leen gënal dellu ci shirk waaye teewul ñu teggine koog yàlla miy def faalu li ma yurit ca mooy du ñu dellu ci seen bokkaal yi xanaa lu dul lu neex yàlla suñu boroom suñu mbir yépp wékk nañ ko ci yàlla delloo ko ci moom ndax yàlla dara réeru ko ci xam-xam daal di ñaan yàlla ay yàlla yàlla nag ñu atteeg suñu xeet bi yow yaa gën ci ñi nga xam ne dañuy attee mi ngi noonu Cheikh Ousmane وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون jazakumullahu xayra suñu borom mu ni wa qaala almalau alladina kafaru min qawmi noon la waxee notaabal yeweddi woon ca xeetam lain ittabaatum shuayban innakum la xa idan la xaasiruun su ngeen toppee shuaybu day kon nekk ngeen ñoo xam ne aji perte ngeen di doon fa axasatuhum rajfa noon la den jàppe yëngug suuf ga fa asbahu fi daarihim jaasimin ñu xëy ca seen kër ya doon ñu fa bóof ca seen óom ya allazina kadabu shuayban ka an lam yagnaw fiha ñu weddi woon shuaybu mel ne musuñu faa jëriñ ci dara ay musuñu faa dëkk ci dara allazina kadabu shuayban kaanu humul xaasirin ña weddi woon Shuayb bu day ñoom ñoo mujj nekk ña aji perte ña fa tawalla anhum noonu la Shuayb bu dëddoo wëlbati ko ci ñoom wa qaala ya qawmi laqad ablagtukum risalati rabbi mu ne ay yéen saa xeet jottali naa leen sama yonenti borom de wa nasaxtu lakum laaye naa leen biir fa kayfa aasa ala qawmin kafirin naka lay tiisoo ci xeet boo xam ne dañoo doon ñu weddi wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyin mus ñoo yénni ci benn dëkk ci benn yonent illa axasna ahlaha loolu jàppe nañ waa dëkk ba bil basaai ca la nga xame ni nii moom mooy ay coonay ñàkk ak i guerre wa darraai ak loo xam ne nii ay lor la yu aju ci ay feebar laallahum yatadarraun ngir ñu daal di doon ñuy toroxlu ci seen kanamu boroom summa baddalna makaana sayiati alxasana gannaaw ba ñu daal di soppee place yi la ñaawoon yépp soppee ko loo xam ne ni lu baax la xatta afow ba baa ñuy doon ñii giijal ci ay xéewal qaa wa qaalu qad massa abauna darraa wa sarraa gannaaw bu ñu ne ah àdduna nii rek la sunu bàyyi ya doon na leen lor doon na leen dal ay lor ak i xéew ak i bànneex fa axadnaahum baxtatan wa hum la yash'uruun ñu jàppe leen ci betteel ci ñoom yéeguñu ko mbokk Shuayb alayhi salaam ñaan na yàlla mu attee ko ak xeetam gannaaw bañ ko menacé moom ñi ma àndal suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa di ne xeet notable xeet ba jóg nañu daa di ne ay yéen xeet bi su ngeen toppee Shuayb bu day da ngeen perte da ngeen alku sunu xërëm yi bu ngeen fexe ba weddi ko alkaa nga dana wàcc ci dëkk bi sunu commerce bii niñ koy defee nga xam ne sunu intérêt yépp ci la aju sunu riba bi sunu noot gi ñuy noot nit ñi suñuy toppee Shuayb bi bàyyi ko ñun ñëpp sunu commerce dana daanu dañ perte te loolu mbokkit seytaane dana ko dugal ci xolu ay jaamam xoli jaami yàlla yi yàlla defalul tawfiq ca mooy ngalawaye ndawal julit léegi la nga gis ku la waar yaa ngi nekk ci liggéey bu xaraam ñu xamal ne lii dafa xaraam boo ko bëggee bàyyi seytaane dana la waaw lii boo ko bàyyi nooy def lii boo ko bàyyi da ngay alku mbokk xamal ne sa wërsëg ci loxo yàlla la nekk liggéey bu mën a doon sabab rekk la waaye du liggéey mooy wërsëgal ana ñaata nit ñoo liggéey ay weeri weeri weer ba pare kenn fayu leen ca dara ba ñu xëy dee lekkuñu ca dara su bëri ngeen dégg ci rajo bi ñu naan service sangam 10 mois service sangam 7 mois loolu kon ñu xam ni sabab lu muy liggéey mais yàlla muy wërsëgal boo demee bañ leen li lii xaram na gëmmal bàyyi ko ci yàlla tax maa ngi lay seede ne loo bàyyi ci yàlla tax yàlla dina la wuutalal lu ko gën loolu la borom bi wax wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib amma ñii comme ay yéeféer lañu Shuaybu mii bu ngeen ko toppee kon ñun ñëpp dañuy alku da ngeen di alku de suñu borom subhanahu wa taala ni noonu la leen jàppee tremblement ba ca mooy ak yuux la leen yàlla yónnee comme na mu ko yónnee waa Samud yuux nga indi yëngu goo xam ne dem na ba yëngal suuf sa ku nekk fam la fekk comme waa Samud fa nga bóof sa xol dagg foofu nga yem suñu borom yàlla ne ah mi ngi noonu waa Shuayb dafa mel ne kenn ci ñoom musul yeewoo ci dëkk ba kon ñoo doon menacé ni ku toppul Shuayb da ngay ku topp Shuayb yaa perte waaye ñoom ñoomay Shuayb de ñoom ñooy wëlbati ko nekk di perte Shuayb daa di ñëwaat tim dëkk ba da leen ay yéen saw xeet man day jottali woon naa leen li ma yàlla yónni ci yéen ca ngalla waay xam leen ni benn yonent musa santaane jaamu yàlla bépp yonent bi yàlla musa yónni da doon jottali la yàlla santaane ci jaamu yàlla mi ngi noonu jottali naa leen la ma yàlla yónni woon ci yéen yéemuma ca loolu nasaxtu lakum laaye naa leen biir wax naa leen conséquences yiy juddoo ca bu ngeen toppee li yàlla bëgg cay xéewal ak la cay juddoo ci mbugal waaye nanguwu leen a digg samay laayi biir léegi nag alku ngeen naka lay tiisoo ci yéen topp leen dem ci am ca ca naari jahannam ca loolu it mbokk mooy taxawaayu jullit wax nañ leen ne yonent bi alayhi salaam taxawoon na lu mel nii keroog ca Badr bañ dajalee juróom ñaar fukk ci kilifay waa Badr jóor leen ca teenu Badr ba ca la leen tiim woo leen ne leen lii lépp waxoon naa leen ko laaye woon naa leen biir nanguwu leen a dégg mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla bu la nattoo jege ñaale xarit la mbokk la bu mu mën a doon nga yëg ni kii kat waar nañ ko ci diini mu lank kaare ba deeyaale kéeféer nga lawaay bu mu la yàqal sa añ bu mu la yàqal sa kaasub ataaya mi ngi noonu bàyyi ko boroomam kayfa asa alal qawmil kafirin yéeféer la moo ko choisir dee ci kéeféer bu mu la yàqal dara borom boobu nag di ñu xamal ne du tëb mukk yónni benn yonent ci xeet yonenti xeet ba weddi rek mu ñëw al alag leen benn yoon déedéet borom bi mu ne musuma yónni benn yonent ci benn xeet lu dul commencé na jàppe xeet ba ci ay coono coono yooyu la doon xeex wi am seen biir ay ñàkk yu tar ci ay nawet yu ñu leen di xañ ay feebar yu yàlla di wàcc ci ñoom ngir ñu mën a toroxlu dellu gannaaw ca loolu it mbokk am na ci doomu aadama yoo xam ne fu ñu sonni seen xel dellu ci yàlla ca loolu moo tax yàlla di teg léeg-léeg nattu jullit ngir mu dellu gannaaw laallahum yadarra'uun waaye dañuy gis bi yàlla indi ay nattoom gaa yi nanguwuñoo dellu gannaaw suñu borom nag indi nattu bi gën a garaaw bu muy nattu ab yéeféer ci kaw suuf nattu bi gën a garaaw bu yàlla nattoo yéeféer ci kaw suuf mooy mu sax ci kéeféer yàlla di dolli ay xéewalam mu ne voilà nag xam ngeen ne ñun ñoo nekk ci dëgg comme li yéefiri Makka yi doon wax ayul fariqayn xayrun makaanan wa ahsanu nadiya xoolal ñuy wote naan ay ñu dañoo gëm yàlla di ko di ko wéetal xoolal ñun li ñu am ci taar xoolal li ñu am ci kattan loolu moo tax suñu borom ni bañ demee ba fittirlu ma wëlb ci jamono mboolem lu doon ay coono ma tegg ko mboolem lu leen doon bégal ci ay xéewalu alal ak nguur ak puissance lépp ma indi leen ko wasarra bañ demee nag ba giijal ba jàpp ne léegi dara tëwu leen borom bi nee na ma ñëw ak mbetteel alak leen fekk xamuñu fan la leen mbugal ma jógee lii mbokk da ngay gis ni mooy mbir boo xam ne yow ndawal jullit heure boo koy dégg li nga xam ne tey mooy Occident ak ni nga xam ne noonu la ñuy lakkale adduna bi ñaata tonne de bombe la ñuy dóor suñu mbokk jullit yi nekk Afghanistan ñaata tonne de bombe la ñuy dóor jamono yi may wax ak yow ci Syrie ñaata ton la ñuy dóor ci Libye ñaata lañ dóor ci Irak ñaata lañ dóor feneen ak feneen ak feneen booleeg la ñuy def ci suuf moo gën a garaaw et pourtant yaa ngi gis seen alal mi ngi gën a yokku seen xéewale mi ngi gën a yokku seen création mi ngi gën a yokku ndax loolu daa firi yàlla daa ànd ak ñoom déedéet suñu borom mi ngi ñuy wax ci beneen saar bañ génn ca gannaaw an am fataxna alayhim abwaaba kulli shay bañ demee ba fitteru dama leen ubbil buntu lu ñu soxla ci àdduna amma fii it gis ngeen mu ne jàpp naa leen la nga xam ne ni mooy asarra ay xéewal ila axiri ba ba di leen bette foo xamee ni ni duñ ko foogee loolu mbokk bind la boo xam ne ni incha allah àllarba bii di ñëw lañ ci dugg pour détailler ko dañ koy wax pour ñi nga xam ne wóorul ndax dañ ko fekkem déet yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci jaamam ñi ko gëm wéetal ko waaye it yal nañu boole ci ñi muy jàmbal àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw dama dafa jóg di bëgg a julli ji ca jàkka ja soxna si na ko toogal fii jiite ma ndax naka lay def wala kulli xaal mbokk dafay julli ji ca jàkka ja dafay dem julli ji ca jàkka ja am na yenn ci borom xam-xam yu nangu ni mën naa julli ji ca jàkka ja ba pare ñëw naafila jiite soxna si ñu julliwaat gee ci kër gi doonte ne boo demoon lu mel ne mazhab Malik duñu nangu loolu yow bi nga déggee nodd wareef la nga dem julli ji loolu nag du wareefu soxna si kon na jullee ci kër gi yow nga dem julli ji ca jàkka ja doon na gën a rafet sax nga ànd ak moom yéen ñaar ñëpp ngeen dem julli ji ca jàkka ja comme soxna jamono yonent bi lii di fajar ak géey dañ ko doon julli ca jàkka ja mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam wa rahmatulah barakatu naam
olof yi ñoo leerul bu baax ko ala kulli xaalin ñu waawul funun naarif an al fununa bi asli laysa bidaa ولكن أرى بعض المساجد صلاة الفجر يعني يفعلون القنوت أنا كنت أصلي في مسجد هناك يعني يفعلون القنوت بعد الفجر وأنا وأنا أتأكد بأن القنوت كل يوم لصلاة الفجر بدعة ولذلك تركت هذا المسجد رجعت هناك لأصلي هذا المسجد هل آه، المسجد الذي تركته ورائي يعني أفضل أن أصلي هناك أو أصلي في هناك wala kulli xaal day wax ne moom gis na ne ne saxal xunut ci fajar dafa bokk ci ay bida loolu tax ba day bàyyi seen jàkka ah, di julli ji beneen jàkka mbokk loolu jarul bàyyi jàkka xunut borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf ndax dañ koy saxal fajar bu nekk ndax dañ koy def fi nawazil ndax dañ koy def ci fajar wala dañ koy def ci witre ndax après rukkoo ndax gannaaw rukkoo ala kulli xaal yow mi nga xam ne yaay imaam xoolal ca yooyee la nga xam ne moo ca dal sa xel nga koy jëfee mais yow mi nga xam ne it da ngaa nekk ci jàkka ci gis imaam lii la tànn te loolu mu tànn du bànneexu boppam ixtilaaf la ci fuqaha yi loolu jarul bàyyi jàkka mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah kii dafay laajte mu ne dafa am xaritam waaw mu ne dafa am nekk bitim réew léegi mu ne dafa am sañ-sañ pour ñu yoroon ko xaalis bu bari ci banque bi léegi dafa bëggoon ko def investissement bi pour que moom xaritam boobu géré ko léegi nag muy laaj ndax moom am na droit géré alal yoo xam ne dinañ dañ ko ci géré ci banque bi mu nekk waaw
alal joo xam ne dañ ko viré ci banque waaw maanaam xaritam bi dafay leb xaalis ci banque ci banque waaw pour mu investir fii géré ko waaw muy laaj ndax moom loolu am na ci droit wala wala kulli xaal xarit bi lépp xaalis ba ca banque ba lañ koy wax mooy moom riba ba muy fay banque ba loole lu xaram la loolu lu xaram la amma waa ji nga xam ne dafa nekk fii moom ñu jël xaalis jox ko te lañ koy liggéey lu liggéey bu dagan la loolu moom yoonam nekkul ci loolu su ko defee ka fàggu xaalisam moom moo xam nu mu ko fàggoo parce que ab yéeféer bu gëmul yàlla gëmul yeneen ci yàlla kenn xamul ni ñuy fàggoo seen alal mais yéeféer sax bu indoon alal ne day investir nga géreel ko ko dagan na nga géreel ko ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw instant ay jullit yi ay jàkk yoo xam ne courant bi dafay julleem dafay gaaw ba nga xam ne balaa ngay pare sa taaya dafay sëlmal léegi may laaj est-ce que foofu nit ki mun nga taaya ba pare gannaaw ba imaam sëlmal yow nga continuer taaya jur jënd sallam sëlmal mbala sëlmal rek nga war a sëlmal ndax bu dee ni imam bi taaya bi dafa gaaw ndax man damay continuer samay taaya ala kulli xaal taaya la ca borom xam-xam yi wax ci waajib mooy tashahud bi ak julli ci salaatu ala nabi bu dee taay bu mujj bi gannaaw ba it topp imam lu war la su ko defee yow daal boo taaya ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu imam sëlmali da nga war a ànd ak moom sëlmal li ci des ay ñaan la mën nga koo ñaan gannaaw bi nga sëlmalee amma nag bu dee yow da ngaa nekk ci sa biir taaye imaam sëlmal ca yow jullee goo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loole moom da ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare doog a sëlmal comme boo àndoon ak imaam imaam roole benn rakka la shakka ne ba sëlmal it yow da ngay indi sa rakka maadaama waajib la nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tant que jullee goo ci moom da ngay julli ci yonente bi amma boo xisee ba julli ci yonente bi alayhi salaam ci des mooy ay ñaan la yoo xam ne mën na def une heure de temps sax su imam sëlmal yi da ngay sëlmal wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam mu ne moom rek nga leeral ko ñëw su faatoo naam dañ lay amaat yëg yi daal moom maanaam buñ ko suulee ba diggante biñ koy bi mu faatoo ba avant ñu koy suul ndax foofu mu amul benn yëg yi wala ndax ab néew buñ ko suul bu faatoo kañ lay amaat yëg-yëg ala kulli xaal mbokk am na ay tegtal yu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni néew bu baax ba faatoo daf naan ay mbokkam yi heure buñ koy waajal gaawe leen ma gaawe leen ma ngir yàkkam ci daje ak boroomam ndax xéewal yi mu xam bu dee ne ko bon la woon buñ koy jëlee di ko yóbbu danaan fu ngeen ma jëme fu ngeen ma jëme loolu da ngay gis ni ay tegtal ñëw na ci loolu ñëw na ci ay tegtal it yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni buñ ko dugalee bàmmeelam su boobaa itamit bu nit ñi demee bay dem dañ ko yëkkati daal di koy delloog ruuxam ba day dégg sax tànk nit ñi ni ñuy demee ñu posé ko fa ay question yooyu kon ay mbir la yoo xam ne yonent bi leeral na ko amma ya ca nekk ci diggante ba nag ban yëg-yëg la ci am loolee mbokk dund ak barzaq mënuñu caa xam lu dul la ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek wax la shakk daal yooyu moom ñëw na ci ay tegtal yoo xam ne ni wax na ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam fatiha waaw waaw waaw waaw da nga nekk ci gannaaw imaam bi léegi moom mu toog di jàng fatiha avant sa fatiha di mat mu rokoo su boobaa yow da ngay yëggale sa fatiha fii ak ragaloo imam bi di la a teqalikoo ak yow ci ruqoo ba maadaama ñi ngi ci même ponk bi man nga koo dab ci même ponk bi da ngay mottali la nga xam ne mooy sa fatiha lu tax loolu ixtilaaf ba borom xam-xam yi am ci fatiha am na ci ñoo xam ne dañ ne mutlaqan boo déggul imam di ko jàng danga ko war a jàng am na ci ñoo xam ne dañoo jàpp ne imam mën na la ko yóbbaaleel dëppoo nañ daal ci ne bu dee da ngaa tardé imam dana la ko yóbbaaleel waa ji tardé woon takbiratul ihram wala ñaareelu rakka wala ñetteelu rakka dugg ci jàkka ji ne allahu akbar rek imam roko su boobaa da ngay roko parce que booba da ngaa tardé imam dina ko yóbbaaleel mais bu dee tardé woo ak imam ci biir jàkka ji su boobaa soo yégee ne imam mi ngi roko profitool gaawal yeggale ko ci xam ngeen fatiha guddul boobu gudd gaawal yeggale ko balaa si gi ci roko bi nga dab ko fa wallahu subhanahu wa taala alam aw yaakaar naa mbokk mënees na doy loolu ba yàlla dajalewaat ñu fi di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp lu ci jub yal na yàlla jàppaloo ñu ko jëfale ñu ko lu ci ay njumte it yal na yàlla wan ñu ko bañ mën koo moytu yal nañu yàlla defal tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain